alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina wa habibina muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira mbokki jullit yi mbokki diaspora bi ah, daarul birr wal irshad ak daarul birr tv noo ngi ñëw ak yéen ci benn bind boo xamante ni moom la ñuy waajal sunu mbokk jigéen yi muy dix occasions pour une femme musulmane maanaam fukki occasion yi ngi nii yoo xam ni benn bu ci nekk benn dars lay nekk pour jigéenu jullit bi war koo bàyyi xel mu nekk nag ay conseil yoo xam ni ñu ngi ko tibbee woon ci conseil à la jeunesse war a ñëw tey mu nekk xaas sa pour sunu jigéen ñi muy doom yi jarbaat yi rakk yi mag yi soxna yi di wax ni yow sama mbokk jullit bu jigéen bi maa ngi lay lancé ab question bu oyof nga jéem a fexe ananan nga koy tontoo question boobu te mooy laaj bi mooy hal yaqwa jasaduki ala nnaar ndax sa yaram àttan na safara te ragal naa ni tontu bi nga jéem a fexe noo ko tontoo ci ay jëf xam nga ni jigéen ku néew kàttan la waaye ku néew doole la kon laaj boobu buñ la ko laajee mooy safaraw àdduna wii àttanoo ko ndax booy togg ba mu laal la da nga wiccaxu tëb même bu doon ndox mu bax laal la sax hôpital moo cay mujj kon xam nga ni sa yaram demul bay jege di àttan ñeme safara kon xam nga ni tàngooru safara bu àllaaxira moo ëpp doole tàngooru safara àdduna lu tax yow soxna si nga ragal safaraw àdduna wii nga xam ni bu doon sondeel bu ñu taal rekk ñeme woo cee teg sa loxo bu dee gaz bi ñuy toggee ñemewoo teg sa loxo bu dee làmp ñemewoo teg sa loxo noonu nga ko ragalee ngir na mu tàngee ne nga yëg ni sëtaatu sët la ci safara jahannam moo tax borom bi ne qul naaru jahannam ashaddu harra kon nan nga mën a ragalee safarawu àdduna te parewoo pour ragal safarawu àllaaxira yow soxna si yow xale bu jigéen bi na nga bàyyi xel bu baax ni moomuloo sa bopp dañu laa moom moomuloo sa yaram dañu laa moom moomuloo sa jëmm dañu laa moom kii la moom moom safara dalaa digal ay ndigal moo ndax ndigal yooyu pare nga pour jéem koo jëfee moo ndax tere yooyu pare nga pour jéem koo bàyyi àndal ak sa xel xalaatal ni ngay tëddee ci mbooloo gént jot nga gént yow rek te ñi nga tëddal kenn yëgut ko noonu nga waroon a xam ni mënoo ko rëccee borom bi taala wa tabaarak kon sab tontu dëgg ci laaj bi ñu la laaj mooy nga fexe ba jël jëf ju baax méngale ko ak say jëf jël wax ju baax méngale ko ak say wax kon occasion yi nga xam ni moom lañu am pour waxtaan ceeg yow soxna si nanga ko bàyyi xel bi jiitu ci première conseil bi ma lay conseiller mooy ixrusi ala adaa salawaat fi waqtiha taxaw seetlu bu njëkk bi di tomb bu njëkk bi ma bëgg a waxtaan ak yow mooy defal farata góor góorgóorlul ba joxe waxtu wi juróom ci waxtoom bu la dara jay bu la toog ci keppaar gi jay bu la toog ci mbooloo mi jay waaye bu nangu seytaane mën la ba jaamu yàlla jot nga ni naa xaar kon góorgóorlul di julli ca waxtoom te fexe nag jàng nan lañuy jullee ci colin ga ak la jàng ak nañuy toroxloo ak julli gi nañ koy bàyyee xel borom bi ne fa waylun lil musallin alladina hum an salaatihim saahuun borom bi nee na xuru mbugal ñeel na ñuy julli ñu ne ko ah mu ne ña nga xam ni bu ñuy julli dañuy sàggan léeg-léeg jigéen ñu bari da ngay gis ñuy julli seeni baat di feeñ ñii seeni loxo di feeñ ñii sax seeni weñ di feeñ wala seen jumbax wala seeni tànk loolu mooy alladina hum an salaatihim saahun mooy ña nga xam ni dañuy sàgganee julli maanaam joxunu julli àqam kon yàlla subhanahu wa su ne fa waylun lil musallin la mu ca jublu mooy ñuy julli te di ko sàggane waxul ñi julliwul kon ñiy julli te di ko sàggane ñooñee la borom bi wax góorgóorlu nañ ba julli waaye ndeke lañu julli baaxul loola moo tax seen julli mënuñ caa ame dara julli goo xam ni mënulaa te xalaat lu bon mënulaa tee def lu bon mënulaa tee wax lu bon mënulaa tee sol lu bon julli googu wax dëgg yàlla nekkul di julli mbaa xam nga ni alwayla waadun fi jahannam benn xur la bu nekk jahannam naudu billah min asheytaani rajim wa naudu billah kon yow jigéeni jullit na nga yëg fa anti masulatun an salaatiki yowma alqiyaama yow yaay responsable ci say julli yowma alqiyaama sa papa du ko garanti sa jëkkër du ko garanti sa sëriñ du ko garanti yëgal ni julli gi su sa jëf yépp daa dinay baax waaye julli gi su bonee sa jëf yépp daa dinay bon kon yëgal ni julli mooy première mbir ci lu jigéenu jullit war a taxawee waaye su julli yàqoo dara dara baaxul kon yow jigéeni jullit góorgóorlul ba nanga sàmm ñeenti mbir balaa ñeenti mbir di ñëw bàyyil xel sa dund gi balaa dee di ñëw ndax bu dee di ñëw du la xaar du la tàggu du xool jànq nga du xool jeeg nga du xool ci lan nga nekk moom fu waxtoom jotee rekk dafay ñëw jël si la borom bi ne qul yatawaffaakum malakul mawti alladi wukkila bikum borom bi ne ki leen di rey mooy malakal mawt ñaata yoon la fekk say moroom ñu nekk ci showbiz mu jël leen ñaata jigéen ñoo taxaw ci seen di way mu jël leen ñu dee ñaata ñoo taxaw ci podium di défilé de mode mu jël leen ñaata ñoo nekk ci kaw podium di def élection Miss mu jël leen waaye ñaata jigéen ñoo nekk ci caaxaan mu jël leen kon nanga xam ni yatawaffaakum malakul mawti alladi wukkila bakum olof nee na bopp day su naree am barke ay nopp yi dégg ñoo cay taxaw kon sàmmal sa dundu gi nga xam ni sa yaram moomuloo ko shabaabaki qabla haramik sàmmal sak ndaw balaa màggete ñëw bëri na say moroom yoo xam ni ñoo ngi génnee seeni ans ak seeni fes col gu nekk ñu ngi koy jéem a col ngir wane nu ñu mel yëguñ ñi seytaane moo nekk seen ginnaaw di leen nax te seen boroom a ngi leen di woo ci njub waaye ñu bañ xool leen tey ñaata jigéenu théâtre kat tey ñoo wëlbati ku nekk ay star suñu jigéen ñépp di leen seetaan ñee leen faa leen te fekk dañ leen a waroon a yërëm dañ leen a waroon a ñaanal yàlla njub ndax njub nekkul ci ñoom màggat a ngi ñëw bu màggat ñëwee ana lan nga koy fayee waaye waxi naaka qabla faqrik ne sàmmal chaque am-am di ci def lu neex yàlla ndax ñàkk dana ñëw kon yow jigéenu jullit sa premier conseil mooy ihrusi ala adaa'i salaat fi waqtiha góorgóorlul di joxe waxtu wi juróom góor góorgóorlul di julli defaloo ko kenn sa bopp nga ko defal ndax yàlla la bind fu kenn fekkewul te bu lay jël même bu ko nit fekkee du ca mun dara yàlla moomu la bind jox lay ndigal ay ndigalam nga war a jëfee waaye moytu ay tereem yal na yàlla defal ñu jàmm defal la ko defal ko mboolem jigéenu jullit asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.